asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam. Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax di la ziyaara bu baax di ziyaara bokki téléspectateurs yi ñuy seetaan yépp di leen dalal jàmm itam ci barab bu tedd bi xam ne mooy jumaa ju mag ji ci Touba jumaay Seexul Xadim ji ni nga ko waxee ñu nekk ci wàccaayu weer wu am solo woo xam ne mooy weeru koor di weeru jaamu yàlla di weeru promotion ci lépp lu baax nga xam ne lu baax baax na ci weer wu waaye ci weeru koor la gëne ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waxoon ni suñ boroom daf koo soob mu sàkk ay barab sàkk ay waxtu sàkk ay jëmm seppi leen gënal leen ci ca des ba muy lim yooyee weeru koor bokkoon na ci weer yi nga xam ni moo gën ci weer yépp mm-hmm. ni ajjuma nekke sangub bis yépp ni la weeru koor nekke sangub weer yépp kon sun boroom moom la soog mu defe ko noonu mu doonoon weer woo xam nit Sëriñ Tuubaa daf ko fonkoon lool su masaana jug ni nga ko waxee léegi daf koy waajal di ko dalal su demee bay tàggoo muy tàggatoog moom ba tax na gis nañu xasidaam gu siiw googu muy wax naan yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi loolu nag day tax murit warula am sago ci dundal weeru koor ngir ki ñu am muy sunu royteef di suñu yaakaar yi àdduna ak alaxira loolu la ñu joxoñoon ci loolu la yoroon suñuy bay suñuy maam ak suñuy wayjur muy dox ba agsi ci nun booba jamono gënoon na metti jafe-jafe yi gënoon na bari gënoon na tar waaye teewul su weeru koor masaan ñëw day neex ba fu waay nekk fu nekk day am yéene dem jaaree mu war a ji fa ci kanamu Cheikhul Xadim ngir xeewal yu bari yi nga xam ne sëriñ bi daana ko def ci weeru koor daayira Muxaddamatul ma nag am ci ndigal loo xam ne mi ngi bàyyeekoo woon ci Cheikh Saalihu Mbàkke ci atum 2005 ci dundal weeru koor gi ci ñaari fan benn bi di fànnu xam-xam def ay waxtaan yoo xam ne day séddalikoo ci niñ ko xame ci ñetti xaaj sëriñ Abdul Xaadir dana ci ñëw léegi muy yenn yi di ay conférence yu am solo yi ci des nekk ay duruus ay bind yoo xam ne dañ ciy jàng jàngale xam-xam yoo xam ne yu amal njëriñ jullit ñi la te jullit ñi bari duñ ko faral di bàyyi xel te lislaam wax ci loo xam ne kenn ku nekk war na koo xam te di ko jëfe yeneen yi ci des nekk ay laaj ak i tontu loolu baaxoo nañ ko def at mu waaye baaxoo nañoo def ay ndog yoo xam ne euh, bu waxtu dog jotee dana fi faral di fekk mbooloo bu bari moo xam ne li gën a néew léeg-léeg dana dem ci ñeenti junni nit loolu nag euh, ni ñu ko xamee at mi ñu génn euh, lu toll ci ñeenti junni nit doon nañ fi doge. bis bu set bis bu set. gën jaa néew. Mm-hmm. jàpp nañ ne sax ren incha allahu dana yokk. ndax lim boobu daana bari lool waaye liñ daan estimé daawu ci egg ci at yi ko jiitu ay ñett junni ñett junni juróomi téeméer waaye daaw gis nañ ne yokk na ba àgg ci ñeenti junni ak ñeenti junni lu topp par bis liggéey boobu nag day séddalikoo ci ay commission yoo xam ne ñooy taxawee liggéey bi yooyu nag juróom yoo xam ne ñooy amee liggéey bi am na lu tudd secretariat général am na ñu tudd commission organisation am na ñu tudd commission sociale am na commission culturelle am na commission communication am na secrétariat administratif am na commission finance secrétariat sénéral ñoom ñooy coordonné liggéey bi ci coordonné mboolem liggéey yi nga xam ne commission yi ñu ngi koy def di ko joyanti di ko nos ba kenn ku nekk xam li ngay liggéey di indi seeni rapport ñu di ko évaluer lu ci mat a dolli ñu dolli ko lu ci mat a joyanti ñu joyanti ko mm-hmm. commission sociale bi nga xam ne tey sëriñ Abdul Ahad bu sama Assane mi ko jiite te yàlla dogal mu am ngànt ma teewalaal ko fi tey ngir jotlil ko ay kàddoom mm-hmm. euh, commission sociale boobu moo jëm amee lépp lu jëme ci dimbalante gi nga xam ne moo nekk ci biir daayira bi ak jokkale daayira bi ak yeneen mbooloo yi ak liggéeyam ci koor gi nii la tëddee lu jiiti koor gi ñoom ñooy dem ci tuuru daayira bi ci Cheikh Mouhamadul Mountakha sa yeesalaat ndigal li ndax xam ngeen ne ab taalibe sëñu te def lenn te amul ndigal te noonu nag ñoo ci raw ndax barab bi ñu nekk laa tafaalu cheyan bi gayri izni fal iznu sartun fi xaboli chani mhm. ci biir koor gi itam amal nañu ay ndimbal yu am solo wala danañu amal ay ndimbal yu am solo mhm. yu jëm ci waa jumaa ji mhm. euh, muy imaam yeeg noddukat yeeg ak mboolem rek ku nekk ci biir jumaa ji te di ci liggéey rawatina waaye daayirat muxaddamatul xidma ak yeneen jumaa yi nga xam ne nag sëriñ bi def koo teg ci loxoy muqaddamatul xidma mu di ko saytu ak leneen ci ay bokki taaliba yoo xam ne gis nañ ne daayira bi war naa taxaw seen wet dimbali leen moo xam ci lu mën a doon lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram danañ ci jàppalante ak nit ñi ci biir daayira bi ak ci biir jumaa ji yépp ay xeeti fànn xeeti fànn ni yu wóote ci ay wàll fànnu faj maanaam ay spécialité yu wut yu wuute ci seenu jëflante ak waa kër docteur yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi ak ay garab yoo xam ne itam danañu koy am di ko jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, daayira bi xam nga ne am na benn poste de santé wala benn case de santé bu nekk ci biir jumaa ji boo xam ne moom it waa commission sociale boobu ñoo loolu tax na Euh, dépensé woon nañu daaw lu toll ci huit millions cent soixante dix huit mille. ci garab ci ci wàllu ndimbalante. Mhm. ci wàllu garab. Mhm. ci wàllu lépp loo xam ne action sociale la boo xam ne def nañ ko ci biir koor gi. Mhm. seen budget daaw tolloon na ci huit million cent soixante dix huit mille. am na it commission culturelle commission culturelle bi seen taxawaay tënk nañ ko léegi muy wàllu xam-xam waxtaani diine yi nga xam ne dañ koy def. ci koor gi danañu amal lu toll ci ñaar euh, fanweeri waxtaan su fekkee weer wi dem na ci fanweeri bis mm-hmm. bu dee ñaar fukki fan juróom-ñeent ñaar fukki fan juróom-ñeent yëpp dañ ciy amal ay waxtaan mm-hmm. itam yu am solo mm-hmm. Cheikh Abdou Khadir dana ñëw dana am ay xeet yi waxtaan comme ni ma ko waxee woon léegi yoo xam ne yu wuute lay doon ci ñett yooyu ma waxoon léegi gën leeral yi dana gën a ñëw ci kanam tuuti ak Cheikh Abdou Khadir danañu defar itam kayitu dog yi nga xam ne moom la ñuy doge lu jiitu koor gi ak yeneen i taxawaay yu am solo yoo xam ne day jëm ci wàllu xam-xam lu bari ci ay formation ci ay e, gën a tënkaat nit ñi ci yar bi jumaa ji laaj ak teggin yi mu laaj ak taxawaay yu am solo yi nga xam ne nit ki war na koy taxawee ci jumaa ji te lépp di dellu ci lislaam njàngale yu am solo yooyu yëpp ñoom dañ koy def mm-hmm. booleeg nag buut ay waxtaankat buut ay modérekat yoo xam ne ñooy taxawu waxtaan wi seen budget bu daaw tolloon na ci un million trois cent cinquante huit mille euh, naka noonu am na commission communication bi nga xam ne Serigne Makhtar Kane mi moo ko jiite ak Serigne Abdoul Khadir Bousso ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu communication ci biir daayira bi internet bi ak télévision bii nga xam ne bokk na ci yi jàllale tey jii waxtaan wi di GMT euh, euh, wala MK bi nga xam ne mooy télévision jumaa ji Tuubaa ji mag ji ak mboolem télévision yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi rawatina télévision yi murid yi yépp mën nañ cee tudd làmp Fall mën nañ cee tudd Touba bi mën nañ cee di it yeneen mboolem site internet yi nga xam ne ñu ngi ci biir dëkk bi wala sax ñu nekk ci biir département bi tey yëngu ci biir lislaam di yëngu itam ci yoonu murid mën nañ cee tudd lu mel ne télévision Al Mouridiyyah ak it nag yeneen télévision yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi di ay télévision yoo xam ne itam euh, mën nañoo wax ne télévision yu mag lañu ci réew mi ñoom ñëpp dañuy ñëw ci biir koor gi di jël si liggéey bi buñ ñëwee ñoom it ñoom ñii la ñuy jokkool day ànd ak ñoom coordonné liggéey bi ba mu am solo ni mu war a amee solo lépp mbooleem rajo yi nekk ci gox bi itam rajo yi dañuy jàllale waxtaan yi ñii dañ koy def direct ñii dañ koy différé di ko teg waaye ñoom ñëpp itam dañu dañu ci liggéey liggéey bu am solo ak waa commission communication xam naa ci kanam. sëriñ Dil dana ñëw ci seen rapport ñoom ni ñuy doxalante ak ñoom. defar di defar ay documentaire ci biir koor gi. di mboolem lu ñi fi ñëw itam di fi indi ay barkeelu ñu di ko génne ñi nga xam ne itam ñooy def waxtaan ñu di ko enregistré ñi koy soxla di jóge ci biir dëkk bi wala di jóge ci yeneen région yi wala feneen fu man di doon. ñu man buñ ñëwee ñu di leen ko joxaat ngir ñu mën ko jàllale loolu day tegtal ne ñoom it xataluñ seen liggéey waaye yaatal nañ ko trop mm-hmm. ñooñu seen budget bu daaw tolloon na ci 1 million 217 mille 800 mm-hmm. am na itam benn secrétariat administratif boo xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllu administration mm-hmm. bind mi ñooñu ñooy tontu lettres yi ñooy defaral euh, commission bu nekk karne boo xam ne ci ngay sukkandiku ngir mën a doxalal sa programme bon yi ngay bind note yi ngay noté rapport yi ngay def questionnaire boo xamante ne bi li ngay war a soxla lépp da koy def da nga ko ci mën a def ngir mu mën a agsi ci secrétariat général bi ci ak yomb liggéey nañu lu am solo ci dañuy liggéey lu am solo ci koor gi ñoom itam dañuy teel lool te fa la ñuy nekk ba guddi di bind rek ak tappe ak a ñooñu seen bis yi taxut woon mu bari lool ndax ay jumtuwaay la waaye nag seen liggéey moom kawe na lool te am na solo lool. Mm-hmm. seen bis yi tolloon na ci deux cent vingt et un mille six cent. Mm-hmm. am na commission organisation te mooy mbooloo bi nga xam ne nag ñoom ñoo yore liggéey bi. Mm-hmm. te sëriñ Maxtaar Kan mi teewal leen fi. ñoom dafa mel ni li ëpp ci liggéey bi ñoom ñoo ko amee. Euh, commission boobu ñoo daan toppatoo lu jëm ci wàllu dalal gan ñi nga xam ne dañuy ñëw ci waxtaan yi muy muy conférence bi am na ci kuréel boo xam ne loolu lay liggéeyee am na ci kuréel boo xam ne yeneen yoo xam ne itam ñooy toppatoo wàllu ndogo yi wàllu ndogo yi itam suñ ko waxee dafa yaatu ndax mi ngi tàmbalee ci suba gi am na ñuy xëy ci fajar tàmbalee nekk ci raxas bi am ñoo xam ne bu asamaan setee ñooy ñëw tàmbalee nekk ci waajal ndogo yi am ñoo xam ne itam ñooy lal fi ñu war a doge hmm. am ñoo xam ne ñooy gàttandu ñuy dog am ñoo xam ne ñooy teg yi ñu war a doge yëpp am ñoo xam ne bu noppee ñoo koy lalli am ñoo xam ne bu noppee itam ñoom ñooy buub barab bi ba mu set wecc tax na mbooloo mu bari lay liggéeyloo daaw ñi ngi doon liggéeyloo lu toll ci juróomi téeméeri nit ak fanweer ak juróom bis bu set bis bu set ñoo xam ne ay góor lañu ak ay jigéen euh, loolu nag lu yomb xam la ndax boo xoolee nii ma la teg tegalee leen liggéey bi rek ñi war a xëy si raxas ay nangami junniy objet diggante palaat kopp kuddu pañey mburu ay cafetière mm-hmm. ay thermos mm-hmm. ay barada ay nangam yoo xam ne lu ci nekk ay junni la mm-hmm. te bokkut ak AGT yi ñoo loolu mbooloo mu bari ñoo ko mën a taxawee loolu nag ay jigéen lañu am Pastef seen li nanga sonn ci liggéey bi lool am ci yitte lool am ci itam ak cawarte lool ñu ngi leen di santu di leen gërëm te di leen soññaat bu baax a baax waaye amit ay ndaw yu sawar yoo xam ne ñoom it ñooy xëy nekk ci waañ wi euh, suba teel huit ba dog di jot ñu ngi ci ay taal di defar ay kafe di defar ay meew di defar ay ataaya am ñeneen ñoo xam ne itam ñu ngi ca jus yu demee ne ay bisaab ay junjeer ay ay ay yeneen yi nga xam ne yëpp lu ñuy dogee lay doon am ñoo xam ne ñu ngi ci bagage yi ñoom ñooy yaale di dem a dikk di leen andil am ñoo xam ne ñooy lal ak a waajal fi nga xam ne fi la ñuy doge am ñoo xam ne itam ñooy teg yi jumtukaay yooyu nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo. Mhm. di ko sàmm am ñuy dalal gan ñi am ñoo xam ne buñ noppee ñoo koy teggi am ñoo xam ne buñ noppee ñooy buub ñooy buub fi ñu ko doon defee raxas ko ba set wecc kon mbooloo mu baree bare lay doon ni mu ko waxee woon daaw ñu ngi tàmbali daan tàmbali liggéey bi ci 6 heures du matin mi ngi daan jeex ci 23 heures daanañu nafila ba noppi. lépp door a jeex kon ñooñu liggéey bu am solo la ñuy liggéey ñooñu nag ñoo ci ëppale budget tax seen budget tolloon na ci euh, vingt deux millions trois cent douze mille francs CFA. vingt deux millions trois cent douze mille. waaw ci weeru koor bi waaw loo xam ne moom dañoo xaalis la boo xam ne dafa tàbbi seen loxo ñu financé ko ci ay yëf. bokkul nag ak euh, jumtukaay yi nga xam ne dafa doon ñëw ñu di ko jëfandikoo commission yi. finance itam am na ci mooy commission bi nga xam ne li fi ñëw ci xaalis ñoom ñoo koy dajale di ko dépensé waat itam ci commission yi commission bu soxla bind moo ñu validé ko ko dem ci ñoom ñu financé ko loolu mooy commission yi nga xam ne ñoo amee wàllu liggéey bi mel na ne it euh, ci loonu li fi ñëw day séddale ko ci ñaari pàcc walla ñett lenn li ay bagages lay doon lu demee ni suukar lu demee ne café lu demee ne tàndarma lu demee ne ak yeneen yu ni deme yoo xam ne dañ koy jëfandikoo. du doon matériel xaalis loolu lay doon. waaw loolu doon xaalis matériel lay doon. Mm-hmm. loolu li fi ñëw daaw biñ ko estimé toll na ci douze million cent trente sept mille. 835 12 millions euh, 137 mille 835 am na ñoo xam ne dañuy defar mburu di fi andi bokkul ak mburu mi nga xam ne moom la ñuy jënd am ñoo xam ne dañuy jënd mburu di fi andi ñaar ñooñu ñëpp dafa am euh, ñooñu indi nañ fi daaw lu toll ci deux mille cinq cent deux vingt cinq mille cent trente et un baguettes mburu ñaar fukki junni hmm. ci ay mburu ak téeméer ak fanweer ak benn yoo xam ne ay nit ñu baax lu demee ne daaira miftaaxul xuyuur ñu am solo lañ ci te am taxawaay bu rafet ci koor gi daaw andi nañ fi lu toll ci quatorze mille six cent soixante sept. bokkut ak li ngeen di jënd yéen. déet ak li ñuy jënd waaye seen lim boobu mu ngi dugg ci biir lim bi ci vingt cinq mille yi. Mm-hmm. Euh, ay kilifa yu am yu bari itam ci dëkk bi yoo xam ne dañuy barkeelu ci wàllu mburu bi ràññee nañu taxawaay yu am solo yoo xam ne ay kilifa lañ yu jege fii lool euh, am nañ ci solo lool ci taxawaay bu mel noonu mën nañ cee cité ku mel ne Soxna Gàdd Buso bañ ko tàmbalee ba daaw at mu jot mburoom day ñëw mën nañ jotu du ko du mel ne Serigne Cheikh Abi Mbacke ak alaaji euh, Serigne Gueye ak ñeneen ñu mel ne ñoom hmm. ñoo xam ne ay at yu baree ngi nii yu tegaloo at mu jot dañuy jëf ci liggéey boobu jëf ju am solo fekk si nag daayira Miftaahul Xuyur bi nga xam ne moo lëkkale boulangerie yi indi nañ fi daaw ni ma ko waxee léegi quatorze mille six cent soixante sept baguettes maanaam fukki junni ak ñeent ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay mburu waa Ilhaamul Latiful Xabiir di sunu bokki taaliba yi nga xam ne ñoo dëkkee Tuubaa Ngoy te Cheikh Mouhamadul Amin Baara boole woon leen ak daayira Muxaddamatul Xidma Pastef boobee ñu di ko dund di ko doxal ba léegi nga xam ne bis bu yàlla sakk ajjuma ju ne dañuy xëyee Touba Ngoy ñi xëyee Ndakaaru ñi xëyee fu ne ci réew mi ñu ñëw ànd ak ñun liggéey bi ba wàcc ñu door a delluwaat waaye Pastef bu toll na ni la ñuy def ci lépp lu xew muy màggal muy koor muy gàmmu lépp dañ koy ànd ak ñun minel bidaaya ila nihaaya ñoom it participé nañ ci lu toll ci junniy mburu ak ñeneen ak ñu baree baree bare ci ay bokki taalibe yoo xam ne bëgg lu baax te nangu cee sonn moo tax ñu di ko def waaye ñu ne jënd nañ lu toll ci vingt et un mille cent ci ay baguettes su ko defee day mel ni liñ jëfandikoo ci mburu daw dem na ci quarante six mille deux cent trente et un ñeent fukki junniy mburu ak juróom benn junni mburu ak ñaari téeméer ak fanweer ak benn kon mel na ne loolu quarante six mille deux cent trente et un mu nekk lim bu am solo ci loo xam ne jëfandikoo nañ ko ci mburu te pourtant li mburu mi di bari bari bari bari am na ay bés yoo xam ne mburu mi du doy te amul benn bés boo xam ne mburu mi yées na junni mburu ak juróomi téeméer te léeg-léeg mu am foo xam ne du fa mën a àgg loolu day tegtale mu nekk des na ko dagg ñaari dagg des na ko dagg ñaari dagg loolu mooy tegtale bari waaye bu nit ñi di bari am na ñoo xam ne léeg-léeg bu dul ko nag xéewal yi nga xam ne dañ koy defar di ko ñëw te mooy ñaareelu partie bi ñaareelu pàcc bi ma enseigné foofu duggaale ci mooy am na ñoo xam ne dañuy defar ay xéewal di ko andi lu mel ne ay laax léeg mu ñëw fi ay beñe ay gâteau ay nangam yoo xam ne nii nit ñi dañ koy mën a jëfandikoo ci waxtu dog yooyu dalay dimbale bu baax ci bu mburu manqué day mën a remplacer mburu ndax am na ay eh, xeeti ndaw yoo xam ne moom bu ñu amul mburu itam nga jox leen bonbon bu am solo wala beñe bu neex day wecc mburu ci ñoom eh, kon loolu itam bari na ay kilifa yoo xam ne doon nañ ko def di ko fi andi am na ñoo xam ne sax dañuy togg ay ñam yu am solo di ko fi andi bis bu la sàkk ci koor gi danañ profité foofu gërëmaale soxna Bali Muntaqa moom itam am na ci taxawaay bu am solo defar waajaloon na ay xewel yu am solo yu yaatu indi ko fi ni noonu sëriñ Cheikh Aw Balla moom Cheikh Mouhamadul Fadil moom itam am na taxawaay bu mel noonu ne ko noonu sëriñ Moustapha Xasida moom Cheikh Abdoulahi borom dër ak yeneen i kilifa yoo xam ne dañuy am taxawaay yu mel noonu di waajal ay xewal yu am solo di ko fi indi waaye itam ak yeneen bokki taaliba yoo xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba léegi ñu di leen ràññee ci taxawaay yu mel noonu kon ñooñu it dana mat a euh, di leeral bu baax a baax dépense yi itam yi jëm ci jumaa ji wax naa léegi commission bu nekk li nga xam ne moom la jëfandikoo ci xaalis mm-hmm. kon damay ñëw ci li ñëw ci xaalis mm-hmm. lépp daaw mm-hmm. tolloon na ci 47 millions 661 mille 905. ci weeru koor gi ci weeru koor gi. li ñëwoon ci bagage tolloon ci 12 millions 137 mille cent 835. Euh, li ñu finance woon ci xaalis daaw xaalis espèce. nekkoon na 46 euh, millions. li ñu financé financé woon lépp nekkoon na 46 millions 750 cinq mille 735. lu ngeen amoon ci xaalis espèce. li ñu amoon ci xaalis espèce nekkoon na 47 millions 661 mille 905. 46 millions et quelques. kon daal ay millions bu manqué ngeen di def. déedéet boo da nga ciy dugalaale bagage bi. dañ ciy dugalaale bagage bi. Hmm. kon desoon na fi euh, lu toll ci 13 million 13 millions yooyee mën nañu wax ne ci lañu euh, li ëpp ci dépense yi màggal gi. Hmm. ci la génnewaat. dépense gàmmu gi itam lu ci bari ci la génnewaat am na nag ay mottali ndax mënu koo matale dëgg waaye doon am na ci apport bu am solo mm-hmm. ci liggéey bu bi nga xam ne liggéey nañ ko ci at mi mu mel ni kon bu ñu seetloo mm-hmm. liggéey bii mm-hmm. dafa nekk liggéey bu am solo boo xam ne am na jàmbaar yu am solo yoo xam ne taxaw nañ ci taxawaay bu am solo jàmbaar yooyu des ci mën ñàkk a yenn ci ay coordinateurs yoo xam ne ñoo coordonné liggéey bi. ñi ñu ànd ni ñi ñu àndal liggéey bi ba ko tàmbalee ba léegi. Mm-hmm. foofu nag desu fi mën a ñàkk fàttaliku. suñu kilifa gu baax ka mm-hmm. nga xam ne ba liggéey bi di tàmbali. Mm-hmm. moom moo ko tàmbali woon. daan ko obisi daan ko tëj si. di ci njëkk a jiital alalam. muy cheikh Mouhamadul Moustapha moom ma Massamba ñu ñaan suñu borom mu dolli ko yërmande dolli ko njëggal dolli ko ay ngërëm. jafee mu tëdd te teg loxo ci njabootam